wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxaatimi sayiduna muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu teddi ñoo ngi leen di nuyu ci juróomi baat yi nu yàlla boole muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi jiital ci nuyoo yooya ak ziyaar ya sunu maam maam Serigne canaba maam Xasan Seck di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla dolli ko sàmm ci zahir ak ci baatin yàlla dolli ko dimbali dolli ko jàppale lool demee noon la ñuy ñaanale mboolem tabaarakallaahu li nga xam ne moom la njaboote ñoo ngi ànd ak yéen ci waxtaane woo xam ne tabaarakallahu yomb na waaye jafe na ndax ki ni waxtaane moo tax ak ki ñuy waxtaane mbiram muy mawlaana cheikh sayidi ahmada tijaani sharif radiallahu anhu lan bëgg waxtaane mbiram ak tariqaam di am kontante ak mbégte lool tabaarakallahu di ndokkeel ak di nuyu ak di siyaar bu baax ki nga xam ne moo nu may occasion bi muy sëriñ Alpha Sarr mi nga xam ne tabaarakallaahu euh, lii ñuy def nii tabaarakallaahu moo nu may occasion bi ban mën ko gën a yaatal defee ko ci réseau bii di Thiénaba TV kon ñu ngi am mbégte kontant lool ci tabaarakallaahu loolu nga xamante ne moo nu ko yombal ndax daf noo yéene yiw ku la wax kaay waxtaan ci yonent bi wala kaay waxal ma ci Sidi Ahmed Tidiane daf laa yéene yiw ba pare tamit tabaarakallaahu yombal la lépp ni nga koy defee di ndokkeel bu baax tabaarakallaahu sëriñ Taala Sarr mi nga xam ne moom lañ ci àndanteel waaye di ndokkeel bu baax tabaarakallaahu sëriñ Bàcc Sarr mi nga xam ne mooy feggoog noonu saa bu ñu ko dee def tabaarakallah Seydi Ahmada Tiijaan yi nag lañ bëgg a waxtaane mbiram ak xam ak la ca aju lépp mu nekk waxtaan wax ne tabaarakallahu eh, ñi ngi ñaan yàlla yàlla dimbalinu ban man ko tàmbali tàmbalin wu rafet waaye tabaarakallaahu tamit mu mën a dem ba yaato yaato yaatu ba àgg fu ne ñëpp mën ci jariñu yàlla nañu yàlla dimbali yombal nu lépp tabaarakallaahu ñu ngi bëgg a waxtaane Seydi Ahmed tiijaani waaye fi ñuy tàmbalee mooy ci juddug Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu waaye ci njàngum alquraanam ak ci njàngum xam-xamam ak sëriñ si nga xam ne te tabaarakallaahu ñoo ko doon jàngal loolu lañ bëgg a ubbee tabaarakallaahu waxtaan wi moo tax fii zikri mawlidihi ci tudd euh, juddug Seydi Ahmad Tijaani waxtaane ko wa qiraatihi ak njàngam alquraaniyati bay ko jug alquraan wala ilmiyati ak njàngum xam-xamam wa masaayiqihi ak ay sëriñam almuallamiina ya nga xam ne ñoo ko jàngal lahu radiallahu anhu ajmain loolu lañ bëgg waxtaane euh, mu ni xamal ni cheikh sayid ahmad tijaani sharif radiallahu anhu ma ngi gane àddina ci atum junni ak téeméer ak bi maanaa juróom fukk ilam xamal ni bi anna cheikh naka cheikh radiyallahu anhu yàlla gërëm ko moom kat xad wulida judd na sannata ci at xamsiina juróom juróom fukk wa mi ata ak téeméer wa alfin ak junni muy atum junni ak téeméer ak juróom fukk mi la Seydi Ahmada Tijaani gane àddina minal hijrati nag ci gàddaay al muhammadiyati gàddaay yonti yàlla muhammad altine ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaaye altine jooju bi mu demee ba am junne at ak téeméeri at ak juróom fukki at ci la mawlaana cheikh sayidi ahmad tijaani sharif radiallahu anhu gane àddina kon teel nga ci biir wax date bi nga xam ne moom la Cheikh Seydi Ahmad Tijaani Cherif radiyallahu anhu ganee àddina ñu koy tënkee naqasa moom la ko moom la ñu koy tënkee naqasa boo ko xoolee nuun la xaaf ak chiin bu tooy chiin bu tooy bi mille la xaaf bi cent la nuun cinquante la soo ko xoolee mu jox la mille cent cinquante bi firi boide naqasa kon Seydi Ahmed Tidiane ma ngi noonu léegi nag am na ñu wax ni ma ngi gane àddina 1737 euh, am na ñu ko wax am na ñu wax tamit 1734 léegi boo xoolee 1734 ak 1737 ñaari dat yooyu euh, ñetti ñetti at rek la rawantee moo tax mu ni waxala kulli xaalin ak lu mën a am ci ñaari dat yooyu isa adatta bu fekkente ne lim nga adat nga jumlata maanaam ñaari dat yooyu bu dee lim nga ko muy ajjaa maa fatxi mawlidul xatmi loolu ma tudd noonu muy ajjaa maa fatxi mawlidul xatmi soo ko déchiffré da lay jox bi maanaa mille euh, cent trente sept boo mille cent trente sept sept cent boobu ma wax moom la lay jox kon soo defee ajjaa sadda jiim gi maxa fatxi ànd ak sama ubbi ko mawlidu xat mi ji juddu yonti yàlla muhammad yëkkuunu day nekk mu waafiqan di dëppoo li taarixil awwalil milaadiya ci dat bu njëkk boobu nga xam ne mooy 1737 am nañu ko wax waaye wa isaa azabta bu fekkee dangaa xisaab mooy dangaa dangaa xisaab mooy dangaa calcul xuruufa ajaa bañ koo sadda jiim gi def ajaa a maxa fathi mawlidul xatmi euh, yëkkunu day nekk mu saadifan di dëppoog li taarixi saani datum ñaareel bi muy 1734 kon bu dee danga xool juddug yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddug euh, sidi ahmad radiyallahu anhu da ngay gis ni daal mooy juddoom bu fekkente ne ci gàddaayug yonti yàlla Muhammad bu fekkente ne nag da ngaa xool ci euh, miilaadiya bi ñii ne 1734 ñii ne 1737 ala kulli xaalin indil na la dat gi wuute gi ci wuute indi na la ko indi na la tamit tabaarakallaahu euh, wuute gi ci nekk lépp su ko defee nag Seydi Ahmed Tijaani boobu euh, wax na la dat bi mu juddoo waaye waxagu la fan la juddoo waxagula tamit ban bis la waxagula tamit ban weer la ak ñaata fan la ca weer wa moom la lay bëgg a wax si maolaana cheikh sayid ahmad tijaani sharif radiallahu anhu ma nga gane àddina fii fil xariyati ci ab dëkk al musammaati ba di ban tuddee bi aynil maadi dëkk bu ñaan aynul maadi fa la cheikh sayid ahmad tijaani ganee àddina kon dégg nga dëkk bi mu ganee àddina ah, fan ñaata fan la mu ni ak ñaat ak ban weer la mu ni la thaalisa asra fukk ak ñett yow ci ay bis min shahri safarin ci weeru safar yowmal xamiisi bisub alxemes la cheikh cheyidi ahmada tijaani ganee àddina kon dégg nga turu dëkk bi mu ganee àddina muy muy aynu maadi waaye ci fukki fan ya ak ñett dégg nga de ca weeru safar la Seydi Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu ganee àddina moom Seydi Ahmed Tidiane euh, euh, am nañu wax leneen wax nañ ni fukki fan ak juróom-ñaar ca weeru safar la kon daanaka boo ko xoolee daf lay dafa mel ni Seydi Ahmed Tidiane euh, bis ba mu ganee àddina mooy bis ba mu nar a amee ji bi maanaa kat mi yeba ndax 18 safar la amoon bi maanaa ci guddi googu la amoon maqaama bu mag boobu danañ ca dem ba àgg ca inchaa allahu rabbi moo tax mu ni euh, waqiila waxeef na fii saabii ci juróom-ñaar asra ci fii saabii asra ci fukki fan ak juróom-ñaar fii shahri safarin ci weeru safar am na ñu ko ñu ko wax boo demee ku mel ni Tijaan ibnu Baaba radiyallahu anhu kama asaara noonu la ko junjee ibnu Baaba Tijaan ibnu Baaba radiyallahu anhu ila zalika bi isabil jumla soo xadatee mboolem jumlam boo fii sadril bayti bi qawli yi ca njaal beenu baytam ba mu ne xasala mabgarul ula ayna wulida bi ayni maadin za bi fadliha sahid boo ko xoolee loolu dalay jox bi maanaa noonu ko junjee moo tax xasala am na mafqarul ula dégg nga de kuukare bu kawe kawe kawe ayna wulida ba mu juddoo bi ayni maadin ci aynu maat za ci judd gi mu juddoo aynu maat ay numaat boobu bi fadliha am na ngëneel lu kawe kawe kawe sahida boo xam ne seede na ko loolu Tijaan ibnu Baaba moo ko moo ko wax euh, waqat te dëgg-dëgg xayyada tënk na al allaamatu euh, bi maanaa xamkat bu mag ba muy jàngkat bu mag ba taariqa mawlidihi euh, bi qawlihi juddug Mawlaana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane boobu ma ngi ko tënk ci baatu xasala mafqarul ula xasala am na mafqarul ula boo ko chiffré xasala 98 la haalonko widla sad 60 lam 30 mabgaru nekk 920 mim 40 raawun gi xaaf euh, gi 100 la raawun gi 600 ra 200 al ula 132 la alif 1 la lam 30 ayin 70 lam 30 yaa 10 boo ko xoolee muy 98 plus 920 plus 132 loolu boo ko xoolee da lay delloo ca dat bële euh, moom la lay delloo kon dëgg-dëgg loolu lay tekki moo tax mu ni waxata fatta na xellu na mawlaana sunu sang alxaaju allaaji ba kan mu ne abdul karimi ku ñuy wax abdul karim kilifa gu ñuy wax abdul karim wax na haza taariqu daala ala taxfiifi uh, uh, sayiduna radiallahu anhu bil xatmi wal katmiya moom it tënk na ko uh, dat boobu mawlaana cheikh sayid ahmad tidiane bi xawli yi ca waxam mawlidul xatmi la ko tënkee mawlidu 80 la al xatmu nekk 1070 boo xoolee loolu lépp dalay delloo ca dat bële ma jàngale woon bi isaabil jumli min xayri itibaaril alif ci nanga nga bañ a jàngaale mawlidu alxat mi da ngay jàng mawlidu xat mi rek waaw kay moo tax mun li adami zuhuri ha ngir ñàkk a feeñ fii fii durji ci bokke da nga koo taxañ kama qaala abu qasim al ariri nam ko waxe woon fii mulhatul arab ci téeréem booba di mulhatul li'rab wa qaala wax na xaw xawmun aw nit innaha naka itibaar boobu laamun laam fa xat kese la is is aliful waslu aliful waslu googu mata tudraj bu fekkee da nga koo taxañ soqat day rot kon loolu wax na ko boo nee mawlidul xadmi nga xool ko baat loolu boo ko chiffré da lay delloo ci dat boobu ma joxe won euh, mu ni tamit ba tey waxat na sama nose na tilkal jumlata boobu jumla alxaaju ku ñuy wax allaaji ba ahmad la tudd muy ñu tudde ko yonent yàlla muhammad al ayaasu kay ko jox ayaasi sukkayri muy seex sukkayri radiyallaahu anhu bi ngeen miin bi minwaali yi ca kukkam ga al ajibu bu yéeme bi xawli yi ca waxam ba moom moom mi ga xamante ne sukkari damay wax ni moo yor secret bi ñu suukaree tariqa bi kon nag dëgg-dëgg moom it tënk na ko mawlidul xat mi musiiru euh, bi maanaam li kamalaati tijaani dimnuhu maanaa baliqa qaala ahluhul maani moo tax mu ni mawlidul xat mi juddug njol màkk juddug Seydi Ahmad Tijaani musirun day day day junj li kamalaati Tijaani matuk Tijaani euh, dimnuhu maanaam baliqan maanaam li ba mu mat sëkk xaalahu waxoon na ko ahlul maani kon euh, waxoon na ko moom Cheikh Sukkari ci dat yooyu waqat asaaruhu junjaan na ko awalan beneen yoon al alaamatu euh, jàngkat boobu muy Sukkari radiyallahu anhu bi qawlihi mu ni mawlidul qutbi al maktum yahiqu bi ayni maadi loolu boo ko siifiree da lay joxaat dat boobu ma joxe woon muy dat boobu euh, Seydi Ahmed Tidiane gane àddina mawlidul qutbi mooy juddug sang bi muy Mawlaana Cheikh Seydi Ahmed tiijan al maktuum mi nga ne dafa nëbbu bañ tudde ko ah, bi maanaa ah, ah, maktuum xutbul maktuum kooku yeexequ aji yay jaadu la bi ayni maadi mu gane dëkk bu ñuy wax ay aynu maadi ndax xutbul maktuum nag suñ bàcc wërta ganee ay randulee nag sanda dëkk dëkk dëkk yooyu na déedéet xutbul maktuum daa war a am dëkk bi muy ganee àddina dafa war a doon dëkk boo xam ne tabaarakallaahu waaw wut dëkk ay puus leen ma dëkk ak randu leen nag yéet kon aynu maadi la ganee àddina mun la nag mawlidu 80 la al qutbu 142 la al maktum 537 la yeequ 118 la bi ayni 132 la maadi 141 la lii boo ko suivre da lay delloo ca dat ba wa asaaruhu jundan na ko saaniyan jundug ñaareel bi xawlihi ahmadu tijaani sayidul awliyaai wa ahmaduhum az lillahi azalan loolu sax boo ko moom tamit da delloo delloowaat ci dat bi dëgg-dëgg moo tax mu ni wa asaaruhu junj na ko zaaniyan jundug ñaareel bi xawlihi ca waxam ba ahmadu tiijaan yi muy seydi ahmadu tiijaan sayyidul awliya mooy sangu waliyu yëpp bu mag bu ndaw bu bu yëg bu yëgul yëpp ñëpp moo leen di tëbb moom cheikh seydi ahmad tiijaan ndax mu middi kulli awliya rahmaani abil abbasi ahmada tiijaani wa ahmaduhum mooy ki gën a sant ci ñoom lillaay ci yàlla azlan ca cosaan waaw ca benn ca ca azal seydi ahmad tiijaan mooy ki gën a sant ndax moom ahmad la tudd maamam yonent bi tudd ahmad baayam tudd Muhammada kon nag wa ahmaduhum mooy ki gën a sant ci ñoom lillaay ñeel yàlla aslan ahmadu 53 la boo ko chiffré ak tijaani 495 la sayidu 314 la am na lim ci salaatul fatiha al awliya 80 euh, la wa ahmadu 59 la hum 45 la lillaay 65 la aslan 39 la lii boo ko chiffré mu delloo la ci date bi kon date bi boo xoolee ñëw na juróom-ñaari yoon sept fois te Sidi Ahmed Tidiane nag mooy borom sept yi kon gis nga ko noonu date bi indi naa ko lu mat juróom-ñaari yoon yoo xam ne foo ko suivre mu delloo la bi maanaa euh, ci euh, at at date bi nga xam ne moom la Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ganee àddina te boole kook tamit tabaarakallaahu yaa ngi koy génnee ci ay mbiram muy mawlidul qutbil maktum yahiqu bi ayni maadi di ko génnewaat ci ahmadu tidiane sayidul awliya wa ahmaduhum lillahi azalan yooyu yëpp boo ko suivre da lay delloo ci dat boobu kon wax naa la date bi Seydi Ahmed Tidiane ganee àddina ba mi juróom-ñaari yoon léegi nag nee na Sidi Ahmad Tidiane boobu wa qad da juddu na a cheikhu cheikh fii aynil maadi ci aynul maadi la juddoo aynu maadi fala maulana cheikh Sidi Ahmad Tidiane juddoo wa hiya moom aynu maadi boobu euh, maqarru ajdaadihi maanaam mooy saxuwaayu ay maamam ay maamam fa lañ saxoon maamam yan al mutaaqarina maama Sidi Ahmad Tidiane yu mujj yi ñoom foofu lañ saxoon waxad ruwiya soloof na ni anna jëddahu naka maamam arrabia ba nga xam ne mooy maamu ñeenteelam mi mawlaana suñu sang ba muhammad ibn salim ki ñu koy dàkkantele muy muhammad euh, saalim boobu ngay dégg moom moomu intaxala moo tuxoo woon min xabilata abdata ci famille bu ñuy wax bàyyi koo ci famille bu ñuy wax euh, abdata maha usuratihi ànd ak ay famille moom salim ila tawjiini aw tujaanata dem dem ci famille bu ñuy wax wala dëkk bu ñuy wax Euh, taw jiin am ñu ne tujaanata foofu sax lañ ba jëlee euh, bi maanaam ñu leen askanale tiijaan kon euh, foofu la jóge léegi nag ba mu demee wata zawaja takk na foofa soxna minhum ci ñoom wa saara mujj na moom saalim moomu awlaaduhu ay doomam wa ahfaaduhu ak i sëtam yuarafuuna ñu leen di xàmmee bi na ci di leen ci tiijaani kon loolu moo mooy moo indi baatu tijaan ba moo tax léeg nga dégg sax kuy kuy diingat ak kuy kuy wax ay waxi waxi sareet ak waxi sam ni ma koy waxee naan tijaan mbaxada lay tekki waaw baatu tijaan bi ñuy wax nii amul amul yaabu bu ko ñoddi boo saddaa jiim ngi baax na boo ko saddawul baax na waaye ak tijaan loolu famille rek la dañ koy dàkkantele Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ci wàllu askanam comme ni ñuy dàkkantele yonantu yi xam nga yonantu boo gis rek wooy juróom wu góor lañ ko daan dàkkantele Muhammad ibnu Abdallah waaye bu fekkente ne nga boo nee yonent bi da gis ne ay ay baayam baayam lañ koy dàkkantele mu dem ba ci ay maamam Muhammad Nuuru Abdullahi Shaybata Asim Abdu Manaaf Kilaab Qusay Murata Kaab Luway Xaalib Fihr Nadar Malik Kinaanata Qushayma Mudrika Ilyas Mudrul Xamra addin nisaaran ma aadan man yu jaawisu adnaan fa taksibu qad jaa minal alami kon dañ koy dàkkantele baayam moom yonti yàlla Muhammad Muhammad ibnu Abdillah su dee ku ku mel ne yonti yàlla mi nga xam ne Sidi Ahmed Tidiane du ko donn ci lii Isa doo dégg ñu koy dàkkantele baayam ndax amul baay yaay rek la am moo tax ñu naan Isa ibnu Mariama Sidi Ahmed Tidiane nag dañ ko dàkkantele euh, bi maanaa ci ay nijaayam moom lañ ko dàkkantele fa la jëlee baatu Tidiane boobu famille rek la moo tax mu ni wa haza lii nag yataddaxu leeral na anna cheikhu radiallahu anhu naka Sidi Ahmed Tidiane yi intasaba askanale nañ ko li aqwaalihi bi maanaa euh, li aqwaalihi ay nijaayam fii haza laqab ci boobu la dàkkantal ci boobu la dàkkantal léegi nag kon wax naa la Sidi Ahmed Tidiane yi ma ngi ganee àddina foofu ci aynu di wax naa la tamit euh, maamam boobu di Salim moo tuxoo bàyyi ko ci giir gu ñuy wax xabilata euh, boo xam a abdata la moom ak fameem dem bi maanaa ci famille Sidi Ahmed Tidiane boobu di ay nijaayam kon noonu la léegi nag waqad yara gis na ku ñuy wax abu nasri jamil la tudd mu ni anna aynul maad yi naka aynul maad allati ba nga xam ne wulida fiiha Sidi Ahmed Tidiane ganee na àddina acheikhu cheikh at tijaani nee na aynul maad yi boobu bu niya tabax nañ ko fii xarnil xaamisal hijriya maanaam ci ci ña ko tabax ci ci ci juróomi siècle ah, ci gàddaay yonent yàlla Muhammad altine bi bi gàddaayee ba am juróomi siècle ci lañ tabax dëkk boobu di aynu di bu dee ci miilaadiya muy juddu yonent yàlla isa fukki siècle ak benn muy onze ci lañ ko tabax wa anna allasi saraa fi binaiha qurba iidal uyun di gën a leeral pour nga xam dëkk boobu di aynul di dëgg dëgg nga xam ko daal yu samma tuddi nañ ko di ibnu yaquba aw maadi ibnu yaqurab am na ñu ni ñu ngi ko tuddee maat ibnu yaquba am ñu ni maat ibnu yaqurab lu ci manti xew rek li waraloon loolu mooy maat da doon dem ca dex googee di fa sangu ba mujj bi maanaam dëkk ba yanu turu turu turu turu maat boobu dex googu waaw moo tax mu ne wa hiya la ak dex la allët yi goo xam ne xamalat yanu na ko ismuhu li kasrati iqtisaalihi biha sangu gum fa doon sangu rek moo dem ba mujj bi maanaam mu yanu turu turu turu turu dëkk ba mu ñu ñu di ko woowee loolu naan naan aynu maat yi dexu maat gi ngir bari lu mu fa doon sangu su ma summee topp ñu tuddee ko alqarita dëkk ba bi ismil ayni ngir turu dex googu kon wax wax naa la Seydi Ahmad Tidiane dëkk bi mu ganee àddina damay ñëw rek ak yow ci ñi nga xamante ñaari woy juróom yi ko meññi yi nga xam ne tamit dëgg-dëgg ñoo ko gàttandu mu ñëw àddina moo tax mu ni waxat na sa a sosu na askanoo na bokk sayyiduna wala sosu na sayyiduna radiyallahu anhu askanoo na moom Seydi Ahmad Tidiane bay na aba way ci diggante ñaari woy jur yu tedd a taahira yi di ñoo xam dañoo laab ñaari waajuram yi dañoo laab ba laab ci biir laab ci biti laab ci jikko laab ci lépp alkaamilay ni ñay way mat sëkk yu mat sëkk lañ doon lañ wa saalixay ni yu yiwee lañ ñaari waajuram yi wal jalilay ni ñaari waajur yu màgg màgg la ñoom ñaari waajur yi Seydi Ahmed Tidiane yooyu wan naasi kay ni ñaari waajur yoo xam ne dañoo kojoo jaamu yàlla ay jaamukati yàlla piir lañ kooka nag ka ca jiitu mawlaana sunu sang ba mahamada bil fathi ku ñuy wax mahamada Euh, bi fathil miim mooy woy juru Seydi Ahmed Tidiane bu góor ñu koy wax Muhammada bil fath ci Afrique soowu jant fii dañoo baaxoo woon ñoom suñ tuddee seen doom yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ cay jël benn xaraf ñu soppi ko ngir bañ suñ ko dee wax wax bu ñagas di dal ci turu yonent yàlla Muhammad boobu moo tax ñu ko daan dindi moo tax mu ni Muhammad bi fathil miim waaye bil fathi nga gis ni mooy indi ki nga xam ne mooy borom ubbiku gi mooy borom fatxu bi muy Maulana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane wa mawlaatina ak sunu sang ba ah, bu jigéen ba muy aïchata radiallahu ma ku ñuy wax aïchata moo nekkoon wayjuru cheikh sayidi ahmada tijaani muy lalla aïcha wala aïchata radiallahu ma ñaar ñii ñoo nekkoon ay ñaari wayjuri cheikh sayidi ahmada tijaani mu mu juddoo ci ñaar ñii nag fii xafaafin ci ak fegu cheikh ku fegu woon la wa siyaanatin ku ñoŋu woon la wa taqwa ku ragal yàlla la wala wa taqwan ak ragal yàlla gu mat sëkk wa diyaanatin ak nekk borom diine ju mat sëkk wa kaana nekkoon na a cheikhu cheikh maaruusan di ñu aar wala di kuñu di kuñu aar bil inaayati ci jagleeg yàlla waaw ah, nekk ku ñu ku ñu sàmm ci jagleeg yàlla cheikh jagleeg yàlla dëgg-dëgg dafa nekkoon ci moom da nga koy xam sax ci ay dundam ak ci doxinam ak ci léppam wa maxfuufa nekk ku fegu moom cheikh bi bi riayati nekk ci càmmeefug yàlla dax Ahmed Tidiane ci càmmeefug yàlla la nekkoon càmmee foog yàlla nag dëgg-dëgg la góor ga waxoon ku yàlla sàng mbalaanum sutura loo tëre di tëre di tëre di say tànk du génn ci biti moom la borom bur naan mu aghnat an mudaafatin min ad duruci wa an xaalin min al utumi a kaaraangeeg yàlla moo gën a wóor yéeg ci kaw tata muy ci kaw étage wala dara di fa nëbbutu Seydi Ahmed Tidiane dafa nekkoon nag ci càmmee foog yàlla subhaanahu wa taala waaye Seydi Ahmed Tidiane boobu wa muqbilan aji jublu la woon ku jublu la ala ittihaadi ci Sidi Ahmed Tidiane dafa bëgg ku farlu ak bañ taaliba bu bu yambare taaliba bu bu yàccaaral Sidi Ahmed Tidiane bëgg ko da daan wax ne taalibe bu amee ab aajo aajo ba nu mu mën a tol bu bu yittëja toloo noonu rek mu jot ci aajo ba himmatul insaani qaahiratun ala jamihil akwaan dana ko boole ca waxam ya moom Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane himmatul insaani yittey nit la wax waxul sama taalibe de waxul jullit nit rek la wax waaye himmatul insaani yittey nit qaahiratun not na ala jamihil akwaani mboo mboolem bi maanaam yi nga xamante ne tabaarakallaahu moom la mooy mooy ay ay ay ay aajoom kon nit lépp lu muy wut bo amee yitte ji rek dana ca jot moom la bàyyi aadi tur naan kuy bul tijaan bi bul toqi bul yoqi kuy wut yàlla boo sawarul sax am ku wooru todooroy cheikh ahmad tijaani sharif radiyallahu anhu kon cheikh wa muqibilan ala ijtihaadi ku farlu woon la moom seydi ahmad tijaani waaye wa maa ilan ku jengoon na ila rusdi jëm ci njub ah moom dafa jengoon ci dëgg jëm ci njub ndax sama maam Taale si daana wax ne bala ngaa xam ne ak njuba neex nga gis ko juba di bañ jàpp ko waaw loolu la daan wax yal yàlla fayal nu ko waaw kon wa maa ilan ku jengoon la moom Sidi Ahmed Tidiane ila rus di jëm bi maanaa ci ak njub waaye wal infiraadi ku daa ku daan weet la ku ñeme woon wéetal yàlla la ku daan nungoo wéet la illa an balaqa adda tamise yi ba koroog mi xàmmee ndeyjoor ba ak càmmoñ ba kon Sidi Ahmed Euh, ku teeloon a ñeme wéet la comme na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan defee yonent bi da daan bari lu muy wéet lool di wéttali koo yàlla wéet ci nit ñi waaye wéttali koo yàlla daan na jël moom yonent bi daan na xëy dem jabalu nuur ca xaaru xiraa di wéetal yàlla di xalaat ci li yàlla bind ndax moom da daan wax ne tafakkaru fi xalqihi waaye wala tafakkaru fi zaatihi dee leen xalaat ci li bind te bañ a xalaat ci li nga xamante ne jëmmi yàlla ji ndax su ngeen ko defee da ngeen ni alku moom nag Sidi Ahmed Tidiane teel na donn ci maamam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy di wéet taalib bi dafa war a ñeme wéet di wéttalikoo yàlla kon Sidi Ahmed Tidiane noonu daan def euh, da daan wéet te loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko daan def ca ba muy nekk tuut tànk boo demee am siya mu ni alifa nuska wala ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nu jabaaw imam busiri way na ko ci am siyam ba yonent bi ku teeloon a miin ak wéet la waaye ku teeloon a miin ren di gàtt la di ko jaamoo yàlla di ko def di ko def bi maanaa sarax mboolem nu baaw yi nag muy tànnee fi dañ ko roy ci loolu Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi mii nag dëgg-dëgg noonu la meloon doon na loola ci maam moo tax ku wal infiraadu ila an balaqa adda tamis ba mu dem nag ba dëgg-dëgg xàmmee nday jooram ak càmmoñ Sidi Ahmed Tidiane teel na day waxe noonu rek waaye ku teel a xàmmee nday jooram ak càmmoñam la ndax lii lépp dëgg-dëgg mën nga ni booba Cheikh ma nga ci at yu ndawe ndawe ndawe Sidi Ahmed Tidiane nag bi mu demee ba xàmmee nii nag mu xàmmee nday jooram ak càmmoñ nag woy juram yi dañoo liggéey ci moom lu jafe lu jafe ci ji jamono mooy ñaari woy juram dañ koo jël gannaaw ban ko sàmmee ba mu àgg foofu ñu jël ko nag jébbal ko daara a kon fii da nga fi jàngee ni lañ jàngoon ca suratu Mariama euh, sëñ Bàcc ca tafsir ba mooy Zakariya ba mu amee doom ja na ko yaa yaxyaa xuzil kitaaba bi quwa yow yaxyaa jëlal sa téere bi nga ànd ak farlu ndax jàng boo àndut ak farlu doo doo du baax doo am xam-xam faaw nga ànd ak yitte faaw nga ànd ak farlu yaa yaxyaa xuzil kitaaba bi quwa jëlal sa téere bi yow yaxyaa nga ànd ak farlu jamonoy mbooya jamonoy ngelaw jamonoy tàng jamonoy taw na nga am ak yitte ak farlu ci jàng mi ngay jàng ndax soo jàng boo deful yitte rek amoo amoo amoo yitte amoo ak farlu rek wala dëgg-dëgg wala xeexoog yenn yi rek dëgg-dëgg doo am xam-xam kon ku am sa doom tuddee ko Basir Mouhamed Ali war ngaa xëy na ko yaa Ali wala yaa Fatima yaa Mouhamed yaa Cheikh udil kitaaba jëlal sa téere bi nga dem jàng bi xuwa ndax Sidi Ahmed Tidiane mii ñaari waajuram dañoo xëy jébbal ko daara ngir mu jàng euh, moom lañ def moo tax mu ni fa aslamaahu ñaari waajuram ya jébbal nañ Sidi Ahmed Tidiane yi lil kitaabi ñeel daara daara jan mu ni alquraani yi daara joo xam ne ko jóg alquran la kon dégg nga seex daara jëm jëkk a dem daare alquran la fii na da nga fi jàngee leen bàcc mooy da nga gis ni kon Seydi Ahmad Tijaan nekkul sëriñ boo xam ne daa xëy rek fettaxe ci asamaan sëriñ ñi cëpp ci kanamu nit ñi kaalawul ne am nitu yàlla laa déedéet dan dafa jaar fi daa fet feti dafa jaar fi doomu soxna war a jaar dañ ko jàngaloo moom Seydi Ahmad Tijaan yi ah di fi ko comme ni ko gars yi defee rek jékki-jékki di xool ci kaw di xool ci suuf asamaan day wëndeelu suuf damaa jege nangam nangam di di di di wax ay waxi sareet déedéet cheikh moom xëyul xëy na am nitu yàlla daa am fu mu jaar ba agsi foofa moo tax mu ni fa aslamaahu lil kitaabi alquraani yi ñaari waajuram lañ ko jël jébbal ko ñaa jébbal ko daara alquran waaye nga gis ne daara alquran la wax fa la ko jébbal kon lii day dellu ca lañ jàngoon ca bopp risaala mu ne xale yi ñu am ci ñoom yaakaar ëllëg ne mën nañoo sàmm diine ji ëllëg mën nañoo dem ba seen cër ya seen xol ba tàkk ci leeru diine leeru alquran feeñ ci seen cër ya ba tabaarakallaahu ñu mën a yóbbu diine ji sàmm ko xale yooyu mooy xale yañ jël ci ñoom jiital ci ñoom yarub diine mooy dugal leen ñu jàng alquran ba xàmmee seen diine ci la Sidi Ahmed dem nag muy daara alquran fa qad afisa mu wat mooy mu mokkal a cheikhu cheikh radiallahu anhu alquranul karim alquran jooju cheikh mokkal ko xifsan ak wattu jayidan gu jéggi dayo jayidan gu mucc ayib dégg nga de waaye mutqinan badi bun xereñe bam leer naññ ala zahri qalbihi mu nekk ci gannaaw xolam ci biir xolam la Sidi Ahmed Tidiane fi la mokkoon alquran boo ko yeewoon ci ay nelaw sax xisib lu mu lënt lu mu lënt lënt yuusikum ñoom ak yooyu yëpp wala tu jaadilu la fa gën a runge ci alquran soo ko fi euh, foo ko fi làmbatu woon cheikh day day jóg rek tari ko mu dem noonu la nekkoon moo tax mu ni mokkal na alquran ifsan ak wattu jayidan gu jéggi dayo gu yéeme mutqinan ba di bun xereñe ba man ko ala dëhri qalbi ba alquran ji sax dàkk Seydi Ahmed Tidiane bi muy mokkal alquran ji wala bi ñuy yëg ni mokkal na alquran booba seex doomu juróom-ñaari at la sëriñ bàcc daa wax ni Seydi Ahmed Tidiane bi ñuy yëg waxul bi ñu koy mokkal bi ñu koy yëg rek boobu bi ñuy yëg ni mokkal na ko juróom ñaari at la wa huwa moom cheikh ibnu sabha sinniina doomu juróom-ñaari at la kama axbar bi zalika nii la ko doon nettalee moom seex bi naf miraaran ay yooni yooni yoon ndax nag maa ko fekke ak maa ko dund ak maa ko def daa gën a wër diwa ko fekke wala diwa ko def seex nag moo doon waxal boppam ni ci juróom-ñaari atam la la lañ moom ne mokkal na alquran nag kenn xamul kañ la ko mokkal ndax Aliou Harrasim nee na maa tëdd ba guddi ma gént ca bu ma gis ca bu ma malaayika yi jël montagne leer di ko jang-jangee di ko diri muy muy xëccanteeg ñoom ñu jël ko ba dugal ko ci dënnu Seydi Ahmed Tidiane ndekete boobu dëgg-dëgg tabaarakallaahu ah montagne moomu montagne um alquran la montagne um xam la montagne um leer la moo tax Seydi Ahmed Tidiane mokkal alquran ci juróom ñaareelu atam fi xalay ordinaire yi di demee daara fi la Seydi Ahmed Tidiane jógee daara ñu yëg ni mokkal na alquran ji mu mokkal ko nag ba noppi di ko waxal boppam mokkal gi dafa jéggi dayoo leer ba nga xamante ne wóor ba nga xam ne cheikh moo ko doon waxal boppam ne man mokkal naa alquran ji wala bi ñuy yëg ni mokkal naa ko booba juróom-ñaari at la ni ko leere moo tax sax arab buy lépp na wa hindal juhaynal xabaru maanaam juhaynatu benn waay la woon boo xamante ne boo amee dafa maanaam dafa boo amee xibaar bu leer rek dañ naan boo bëgg mënee xibaar mën a xam xibaar bu mu leer ni mu leer naññ dañ naan yaa ngi mel ne juhayna arab mooy léebee noonu ndax juhayna dafa am ñaari sulaar yoo xam ne dañoo ca bisoron ba jënd fa sàngara fekke na waxaale gi moom juxëy na fekke lépp ñu jaay leen ko mu mu topp seen gannaaw ñu dem naan ba màndi commencé naan asamaan si mu ngi damaa jege suuf saa ngi wëndeelu ba histoire ñoom ñaari sa ñaari solaar yi ba xeex ba rocc ay jaas yi ak i paaka jamante xeex ba rayante léegi nag bi dikkee fekki nag ñaari solaar yi rayante ñuy laaj xibaar ñu ni laaj leen juxëy na Juhayna moom nettali mbir mi ni mu demee fañ jëndee sàngara seeg lañ waxaaleeg lañ leen ca wàññi nag fi ñu naaneeg fi ñu xeexeeg fi mu ko rayeeg yépp moo tax nag boo amatee xibaar bu wóor na ñu naan la yaa ngi mel ne Juhayna si daa Tijaan nag ni ko leeree ni mokk alquran ji mokkal na ko ci ati juróom ñaari bam koy nettali boppam bi nafsihi miraaran miraaran moom la wax na wa hindal Juhayna dafa mel na Juhayna alxabara ci bi maanaa alxabaru ci xibaar boobu léegi nag mu mokkal ko min riwaayati Naafi' ma ngi ko mokkal ci riwaaya Naafi' la ko mokkal naafi ba nga xam ne moo jàngal wars te ku ne xam nañu ne dëgg-dëgg tabaarakallaahu mu mokkal ko moom Sidi Ahmed Tidiane yi kon dégg nga fi ko ay way juróom jaarale mooy jàngaloo ko alquran mu mokkal alquran mokkal gu jéggi dayo waaye mokkale ko tamit ci bi maanaa euh, euh, euh, bi maanaa riwaaya naafi la ko mokkale ala yeddil ustaas ci loxo ustaas boo xam ne abi abdillahi lañ koy woowe muhammad ibnul umawi moo ko moo ko moo ko jàngal radiallahu anhu fii nag ah, di ngeen fi jàngee loo xam ne mat naa bàyyi xel mooy daa Ahmed Tidiane da doon tudd ay sëriñam maanaam diwoo ma jàngal maanaam lu mu jàng rek danaan diwoo ma jàngal mais ci bi mu doon ñim même bi mu demee bay jëflanteeg ñi mu doon jëflanteeg ci wàllu yàlla sax da doon indi tariqa yi mu doon jaar da ko doon wax kon la nga cay déggee mooy musul jaar ci benn nit jëflante moom ci wàllu yàlla wala mu jàngal ko xam-xam mu koy ndëbb ndax am na ñoo xam ne bëgg daraja ak wu yëkkati ko tax na duñ tudd seeni sëriñ dañuy nëbb seeni sëriñ mel na ñoom yàllaa leen jàngal wala ab yonantu leen jàngal wala wala keneen leneen leen jàngal fekk am nañ sëriñ si di amee tijaan nag difu ko da doon cité ay sëriñam ah moo tax gis nga dañoo teel a xam ki ko jàngal waaw alquran ba mu mokkal ko kon am na ñoo xam ne dañoo njort ne ñoom dañoo foog ne bu ñu waxee seen sëriñ rek seen daraja gotteeku na waaw te fekk booba looloo la gën a mën a yëkkati ndax ki tax ba ñëpp bëgg laa jur wala gis bëgg laa jur ngir ngir xam-xam bi nekk ci yow kooku dëgg-dëgg war ngaa mën a net foo waxee rek tudd turam moo tax mu ni euh, mi ngi ko jàngee ci loxam Muhammad ibnu euh, euh, abi abdillahi Muhammad ibnu Umawi ci la jàngee bi maanaa alquran jooju si daamé tijaan nag ci juróom-ñaari at yi def na ci ñaari mbir yu yéeme mooy mokkal ci alquran waaye aj ci juróom-ñaari juróom-ñaari yoon moo tax wa minal bidai bokk na ci guleet guleet mooy musu am ah baat ko arabi ci jënde waaw moo tax mu ni wa minal bidai bokk na ci bokk na ci guleet aydan ba tey annahu naka moom si qad ajja aj na sabaa jaatin juróom-ñaari aj fii zalika zinni ci bi maanaa ati juróom-ñaari yooyu kama qaala mawlana ubaydatu radiallahu anhu fii laamiyatul maaluma nii ko bi maanaa sunu sang ba tedd ba ubayda nettalee ca laamiyam bu yéeme ba ne lawoo ñeel na cheikh ay aj sabxun yoo xam ne juróom-ñaar la li saabici sinnihi ci juróom-ñaareeli atam wa itqaanil qur'aani ak xereña gum xereña al li zalika bi maanaa eh, ci li zalika zinni ci juróom-ñaari at alqur'aan yoo xam ne mus jalla dañ koo enregistré ci xolam bi wala mus jalla dañ koo boyal ba tey firi mi loolu d'accord da ci kon Sidi Ahmed Tidiane eh, Chérif radiyallahu anhu loolu tabaarakallaahu la jaar ci wàllu njàngam léegi Sidi Ahmed Tidiane bi mu jàngee alquran ba noppi yëmut ci waaye dafa ittewoo soxla woo jàng xam-xam ndax alquran soo ko jàngee ba noppi li koy téye ci yow ba mu baax ba mu sax ci yow ba boo jëfee sa jëf nekk jëfi alquran nga jikkowoo jikkoy alquran dafay fekk bi nga jàngee alquran ba mokkal ko ñu jël la tegaat la ci daara nga continué nag jàng xam-xam muy majalis kon Sidi Ahmed bi mu paree ci jàngum alquranam moomu yëmut ci waaye dafa continué nag dëgg-dëgg jàng branche yi nga xam ne moom la doomu soxna war a jàng ba xam xam dëgër ndax léeg-léeg nga gis ku jàng ku jàng alquran ba mokkal ko waaye ngeen ñu bàyyi ko rek mu dem defi leneen lu bokk tëkkum njàng wala duggul ci leneen luy mën a wattu njàngam mooma day dem ba alquran ji def koy rëcci waaye du yem ci rëcc ko sax léeg-léeg day jëf-jëf joo xam ne wala mu wax loo xam ne dañ kii alquran ji mu jàngi woon fan la nekk ci moom fan la nekk ci dënnam fekk alquran ji li tax amul benn jeexintal ci moom mooy bi mu paree ci alquran ji rek dafa jekk dafa jàpp ni moom léegi kuñ boyal la njàngum alxuraan ca daara jeg la yemoon waaye comme pare na ci alxuraan bi léegi moom moom moom boppam ci lépp lu ma neex di laay def su ko defee loolay wara léeg-léeg ngay gis nit jàng alxuraan ba mokkal ko te bu jëfee rek nit ñi xeeb ko fekk booba dañu koo tegaatul ci yoonu njàngum xam-xam muy njàngum sharia moo tax Sidi Ahmed Tidiane bi mu noppee ci alquran bi wastaxala soxla woon a cheikhu cheikh radiallahu anhu baada ifsihi zikri al hakimi gannaaw bi mu paree ci njàngum alquran soxla woona bi talabii al uluma al rasmiyatu hatta tadallaa fi fiiha euh, pare na nag daal di sóobu ci njàngum xam-xam fa qara a ba mu jàng ala yeddi mawlana al aalimi al allaama al mabruk al mudaawi mu jàng ci moom euh, bi maanaa muxtasaru laqdariyu téere bu yéeme boobu di laxdariyu nga xamante ne boo ko xasee jàng ba man ko maîtriser buntu yépp rawatina euh, baabu shahwi ba yi ca nekk buntu booba soo ko xasee man man la nekk buntu yee ko jiitu yam jàngale yépp rek dangay gis ni man nga lu dëgër ci sa diine waaw ah, yow sa fondement wu diine moom dëgër na lax dariw su ko ñëpp maîtriser woon nañ ko war a maîtriser ñiy dem ci jàkka yi dana néew ñu ci orienté naan leen jullee leen néeg defee leen néeg taxawee leen néeg yooyu du ci am ndax ndax dariw moom tabaarakallaahu téere bu bu bu bu riis la nga xamante ne mag ñi dañ ko tudde woon làq jariñu ndax ni mu amee ay njariñ yu baree bare baree bari fii da Ahmed Tidiane moom la jëkk a jàng muy muxtasaru laqdari moom la jàng mu noppi nag jàng ca al asmawi muy téere bu ñuy wax asmawi ñaari téere yi euh, euh, bàcc dama ko tari ba mu jeex tàkk laqdari asmawi doonte wesar la sax waaye sëriñ dama doon forcé ma di ko tari laqdari moom dama ko tari suba ngoon waaw ah, dama ko tari de ak asmawi yëpp yëpp dama ko tari muqaddimatul isiya Sidi Ahmed Tidiane jàng ko mu jàng pare jàng risaala ba mu noppeeti mu jàng muqaddimatu ibnu rusdi ibnu rusdi tabaarakallaahu sama benn mbokk bu ñuy wax alaaji Thiaw ca daara ja moo ma daan toppal ndeysaan sama jàngaan sëriñ bi rek moo ma daan toppal ba pare tabaarakallaahu ibnu rusdi téere boo xam ne bu bu bu yéeme yéeme la euh, mursid mu jàng ko fa muy ibnu ashir ibnu ashir moom tabaarakallaahu moom damay wax ni moom tabaarakallaahu mooy mooy dëpp gi maa ngi ko daan jàng diggante euh, euh, bu ñu jullee tisbaar ba añ ba pare ak 5 heures ndax heure boobu la sëriñ bi génn na ma tari waaw moo tax téere bu ma mokkaloon na ndax diggante bi daa xat waaye lu mu lu mu xat-xat rek du teema tari waaw bi ma demee bay jàng furudul xusli daal foofu laa xat bis boobu moom damaa jëllal <laughs> tabaarakallaahu daal léeg-léeg taalib daa daa mën a tappale waaye dama ko tari ba mu jeex wax dëgg yàlla Ibnu Ashir déggoon ko lool euh, mu muxtasaru euh, Cheikh Khalil waaw kooku moom tabaarakallaahu damay wax ne dëkk bu ma am miiqa di fa nekk danaa ci jënd benn bàyyi fa ndax Khalil moom tabaarakallaahu waaw moom mooy mooy mooy mooy kéeri bi nga xam ne boo ko xasee dégg nag moom dëgg-dëgg dangay wax ni mën ngaa dem nag nekk mufti commencé ubbee ci ay masala ndax xalil moom waaw ah, tabaarakallaahu xalil miin na ni ko si daamete jaan dafa ni yéeme na ndax cheikh la commencé ca yaquulu ba ca jus u usaani ba lépp da koo tari moom waaw loolu nag tabaarakallaahu moo ci ne mën na àgguma woon foofa waaw waaye déggoon naa ko lool ndax neuf heures ci guddi ba wi dama naan lal di ko jàngale neuf heures ba minuit dama naan lal di ko jàngale waaw dëgg yàlla déggoon xalil lool tabaarakallaahu nga xam ne bi ma fàttalikoo bi ma ko jëkkee jox ko ko lem téere bi nii ci kaw am lu mu bind nii ci loxaam daa koy tak takkaat ci mbuus na ma demal denc ko ba ma woo la waaye wax dëgg yàlla bi ma koy jàng ñi ma doon bokkal daara ci xam nañ dégg naa xalil de waaw léegi nag léeg-léeg ñu woo ma laaj ma ci masala ma ne ah bàyyi leen ma xoolal ko ndax léegi damaa commencé wutub xaalis kër waaye moo nekk ci daara ja moom ko jaarale yoon de déedéet masala yëpp dawuma ci daw benn jullegg ka ñaareel ak jullegg ka ñetteel ak jullegg ka juróomeel ak tënkam yàgg yëpp tabaarakallaahu si daama ko manoon la Cheikh Xalil waaw waxoon naa jus u ñaareel bi lépp da koo moo ko ndax ñaari xaaj la moom Cheikh Khalil kon yii Cheikh daf ko teel jàng moo tax mu ne wa muxtasaru Cheikh Khalil ak euh, muxtasaru Cheikh Khalil mu jàng ko aani li ma ci bëgg a wax ci Khalil moom mooy jus ay hi ñaari xaaj yépp da koo jàng wa xayriha min al kutubil mutawalati allati la yumkinu asruha fi hasi nubsa ak yeneen xeeti téere yu gudd yoo xam ne dëgg-dëgg boo ko bëggoon a lim sax macha allah tabarakallahu da nga da nga danga nga da nga lool waaw ah, da nga guddal lool kon Eh, Seydi Ahmed Tidiane tabaarakallaahu foofu la jaar su ma tamaada mu continue nag fii talabil ilmi zamanan fii baladi eh, mu continue nag di jàng ca dëkk booba xam-xam xataa qaraa ba jàng jamial ulumi al maqruati fii waqtihi te booba nag wa umruhu xamsu asrata sanna jàng na mm, fukki at ak juróom cheikh jàng na mboolem branche yi nga xam ne soo ko jàngoon boo dikkee toog fii ci dëkk bi kaalawu na këem wut sa kaala commencé na nitu yàlla nga moom nag taxul mu toog mun ni taaqat himmati ila ahlillaahi sama yitte yëkkatiku na man cheikh ma war a dem ci nitu yàlla yeeg kum dem ci moom day dem a dem a dem ba nga xam ne moo la raw mu mu jàll ci keneen noonu la doon def ba nga xam ne bi muy am vingt et fekk na def na xam-xam yi ñuy jàng ci yi jàng ci téere def na ko comme xam-xam yi ñuy jàng ci téere kon su ko defee loolu laa waxoon danaa ko indi tey tabaarakallahu ah, eh, ci ci ci ci njàlbeenu cheikh ak njàngam ak ci ca aju kon wax naa fi xam-xam yim jàng waaye dese na ñaari xeeti xam-xam yoo xam ne jàngagu ko muy am xam-xamu tajwid ak xam-xamu hadis dinaa ci ñëw ci beneen yoon foofu la ñuy déparé incha allahu rabbi ñu xool lan moo tax eh, ñaari xam-xam yooyu cheikh yéex koo jàng incha allahu rabbi ba àndee kartanal yàlla yooyu dinaa ci dinaa ci ñëw ndax njàngam dana taxaw juróomi at lan moo waral mu taxaw loolu ci beneen eh, tabaarakallah dars bi ci des lay lay ñëw incha allahu rabbi kon su ko defee yal na defal nu taysiir yàlla dool noo jàppale ci zahir ak ci baatin ñi ngi am mbégte kontaan loolu di euh, ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp euh, réseau bi muy Thiénaba TV euh, di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal ndam yàlla na yàlla tëbbuñu ci leeri Maulana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Serif radiyallahu anhu ban gën a mën a tabaarakallah waxtaane mbiram ak tariqaam ak la ci aju lépp ñu ngi wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos